basuma basuma mbare soko non ko abidje iba famale dia nafiyo nafiyo koy la jeunesse c'est vous qui m'intéressez kese la jeunesse man depuis début combat bi lu mu leen di wax la jeunesse su ma waxul la jeunesse lu may wax la Casamance c'est comme nous sommes dans une nouvelle phase c'est-à-dire être intègre et non intégré. La jeunesse wax jaa ngi mel na lekk mel la te man gisuma lu fi jar wax ndax lu loxo def loxo da koy dindi quoi c'est que man benn instant ñu ngi jël décret ñu ngi jël décret ñu ngi jël décret mais avancement ci administration ay notes ñoo koy def. man su ma juumul avancement parce que man on m'a donné des notes ay notes ay notes professeurs yi ngeen di gis policiers yi gendarmes yi képp kuy fonctionnaire sa avancement c'est des notes qui le font donc pourquoi débat ñu may yónnee RTS def nañ ni ki def na lii no non non dam leen déglu ñeneen ñi gars yi lu loxo def loxo da koy dindi décret moo ko signé noonu décret bi kan moo ko signé du benn nit moo ko signé yéen ngeen am ñaari président yoo xam dañuy jël décret am ñu bëgg di ma attardé di ma yónnee yenn yi naan ma grand lii grand lii déedéet man maa bañ déedéet man déedéet kii di dem moom kese a xelam moom kese mooy def lu ko neex moom kese kii di ñëw jëmm la ak ruux te bu ruux setee boo tiitee si jëmm di c'est parce que yow yow yaa setut walla wala voilà c'est que man moment bi ma gis ñuy débat ci affaire Bassirou Diomaye di tiit fu ñu jëm nii gars yi gars yi am na lu manqué ci yéen am na lu setut sincèrement y a quelque chose qui n'est pas propre soit xol yee tilim xol yi la ñu war a fóot soit xol yi la ñu war a laabal Mais il y a, on a plus de priorité. On a plus de priorité Fall. benn rek laay wax mooy nomination gendarmerie bi ne non dañu dugal gendarmerie armée nationale mais yéen tam yi mais mais mais qu'est-ce que c'est que la gendarmerie c'est des militaires non militaire bu jàng droit la mooy gendarmerie c'est la justice militaire. depuis dëpuis deux mille dix-neuf kan mooy commander réew mi c'est l'armée ou la gendarmerie ban corps ban corps moo gën a armé wu gën a équipé wu Sénégal c'est c'est pas la gendarmerie est-ce que c'est pas la gendarmerie ñu dem sur le plan sécuritaire parce que tey foog ma defal leen antithèse ak thèse mais tey thèse bi laay commencer ndax mu leer seen bopp. Sur le plan sécuritaire, la gendarmerie est équipée comme l'armée sénégalaise. Macky fexe woon ba mu Sénégal am ñaari kilifa dans l'armée sénégalaise mooy Moussa Fall ba à la fin c'est le général de la gendarmerie même bu yilif suñu semga chef d'état-major des armées Moussa Fall yilif ko en tant que un simple général Mbaye Cissé balaa moo wax sax day laajte Moussa Fall Mbaye Cissé balaa moo wax sax foog mu laajte Marème fay Sall tey ñu ne reversé nañu waat gendarmerie armée ma dégg ñenn ñi def ko débat parce que sur le plan technique parce que sur le plan technique sur le plan technique dëkk bi yenn wax yi ngeen may yónnee yu bëri ñàkk respecté suñu armée sénégalaise la yen ngeen foog ne gars yi ñun dinañ xeexal Diomaye fay ba ñëw nii xeexal ba Bassirou Diomaye Faye ba ñëw fal Ousmane Sonko muy suñu interlocuteur diggante beeg président bi ñun le peuple on a notre président les institutions ont leur président du jamais vu dans le pays may dégg ñenn ñi di xalaat naan non Ousmane Sonko eh Ousmane Sonko même bu bokk ci gouvernement bi Bassirou Diomaye Faye day toog gérer réew mi bay beeg yooyu yëpp wala Ousmane Sonko bayloo booy yi Bassirou Diomaye Faye dugg dem eh on a deux présidents loolu man xam nga lan laay bañ parce que vice président bu ñu doon xeex ñu ñëwaat bëgguma ko imposer boobu lu leer ngay teg sama loxo pour imposer ma ko. man yow mii dee ñi dee ñi dee wala waa léegi gars yi soyez clair yéen patriote foog ngeen mun tontu. bàyyi dàggasante bi gis nga gars yi nekkuñu si heure dàggasante patriote di non gars yi nekkuñu si heure dàggasante nekkatuñ ci heure monter les gens jeu monter les gens en chair pression bi c'est trop eh dañu nekk si de non kon Sénégal yéen tollu ngeen si niveau boo xam ne ñun dinañu fal ba Bassirou Diomaye Faye jiital ko mu dem waat ngeen am xel ñaar ne non dañ leen di rey moom ak Ousmane Sonko mais gars mais il faut qu'on se respecte il faut qu'on se yow mii di live ñi dee kan la ñu fal Ousmane Sonko la ñu fal luñ sama boy Casamance bi bi muy mujjee dee lu mu ñu wax fexe leen ba bu projet bi naax saa Ousmane Sonko Ousmane Sonko la ñu fal. moo tax man boo leen ci bëggee def débat naan non est-ce que lii kii neena lii buleen leen ko envoyé ngir yàlla man du ma débat si yéen yi parce que mënu ma ko mënu ko gis si àdduna ñaar la yàgg naa leen ko wax si débat takkandeer dafa am waa léegi walla ñun léegi waa léegi même bu dul waa léegi kon waa léegi ñun Ousmane Sonko tey la ñu fal aywa takkandeeru Ousmane Sonko tey la yàlla andi tey muy Bassirou Diomaye Faye point final passe à autre chose on a problème ñoom set setal national mardi ñu ne lan prestation de serment Bassirou Diomaye fay ne buñ ko def stade du ma ci wax c'est leta du ma ci wax c'est l'état l'état c'est l'état lenn rek tey moo ma doon neex bu Macky Sall commencé wul woon def lu ko neex te lu loxo def loxo da koy dindi moo tax wax si tardé sa bopp la. après prestation de serment gouvernement bi ñu war a proposé gouvernement boobu mbaa yaa ngeen ni sóor ñu ngi wax rek mille cinq cent détenus bien sûr y a des morts bien sûr mais côté des enfants de la république gars yi mbaa xam ngeen ne xale yi la jeunesse xam nga mos naa leen ne seen morom yi ngeen di xeexal gendarme yeeg policiers yi ay xale lañ comme yéen mais ñoom ils organiser moo tax ñu mun leen contenir ñooñu xam ngeen ñaataa si gaañu ñenn ñi seen tànk yàqu di xeeñ ñi seen bët di yàqu mooy auxiliaire gémi xam ngeen ñaataa si blessé ba seen yenn chef yoo xam man est-ce que ñooñu est-ce que moment yi waruñu bàyyi tuuti attention ñun politique yi APR kii déedéet di opposé wu amatuñu temps boobu léegi xoola on y va vers la république gendarme boobu loxoom daggoon te mu fekkoon Ousmane Sonko fële tey bu dee Sénégal dañ lay inaptaloo bu dee France bi dañ lay andi defal la loxo affecte le consulat au moins benn deux ans ndax sax deux ans dañuy relevanté ñaata gradé ñoo nekk ci biir kaso bi ñaata gendarme ñoo nekk prison actuellement pourtant ñu ngi am ne civil yëpp génnee leen mais y a combien Il y a combien de hauts gradés de la gendarmerie qui sont à l'intérieur Est-ce que c'est normal kon da ngeen fagoon na kon patriote yi si civil yi kese ñoo doon patriote bu doon civil yi kese ñoo doon patriote du ñu fàtte ay homme de tenue kaso bi te ñu xam naa ne seen place normalement Bassirou Diomaye Faye si grâce bii moom képp kuy am de tenue grâce bii waroo des kaso man sama booy bi moom commandant Ibrahima Dramé moom mënu leen wax ba un booy ki nga xam ne dafa jàng ba jàng nga bopp bi di wax comme lii ngeen bàyyi ko ci kaso bi téye ko mënate ko ba loxo yëpp def ay dëngat yaram yëpp ay góom la ci un commandant de la gendarmerie waa léegi kooku léegi boo leen génnee tey noo leen di réglé kaawam capitaine Touré am nga liggéey de bu am nga liggéey bu rëy te di nga ko liggéeya ndax yow tu étais gendarme tu étais homme de tenue bul bàyyi gars yi mu sedd de faay boo xam arrangé wul Sénégal loo mën a def pour joindre leen foog nga joindre leen te ba pare maa ngi dégg beneen wax gars yi décroché tuñu téléphone mais lu tax ñuy décroché téléphone. pourquoi déggu leen li ma leen wax keroog bi ñu falee Basirou laa leen ne gendarmerie dem na fa ñu ne waa mën leen Basirou moomatuñ ko. Bassirou Diomaye Faye sori na waa léegi suñu doom yi dem Bango classe janvier bii nii aywa yéen ñuy waajur yi est-ce que yaa ngeen di jot seen doom yi dans l'armée parce que kooku c'est des enfants de la République maa ngi gis ñuy dem si presse bi dagg vidéo papam xam nga ndeysaan paa yi dañuy napp doom comme man ni ma meloon balaa maa ñëw Europe noonu laa meloon nap ci doom mais léegi je m'en fous ci dégg nit mais gay yi non gars yi man daal Sénégal daal génn guñu ci élection passation de service amas commencé gul ñu bëgg ñu yóbbuwaat ci lan politique quel genre de politique au lieu de politique avec des projets politique avec des programmes mais non politique des mœurs c'est-à-dire dund doomu aadama jëfinu doomu aadama loolu patriote xoola loolu nag xeex bi nag dafa yomb xeex bi dafa yomb ah, parce que man yu bëri maa ko doon weddi ne noo xale yi dañuy war libre man ci waxtaan ak kilifa du mag mu ne ma nii mën a ko yee eh, kan moo defaral booy crédit parce que déggoon na Pape ala ñaa wax bërki dem mu ne noo xaw ma ban commissaire yaa ngi doog am di jàpp di jàpp rek léegi li nekk si internet bi mën leen yee eh, eh, yee xale yi papa kenn jëndul leen crédit xale yaay jënd seen crédit bopp kilifa ñoo war a fexe ñoom am comportement boo xam ne xale yi dinañ am yeneen débat yi dul kaa é eh, pensée unique munul dox si réew de xale yi fii ku nekk am droit nag gis nga taal si internet dund say happiness loolu moom fal nous sommes 17 millions de sénégalais 2 million ñoo ñu fal 2 millions ñoo ñu fal ñu yokk 5 millions de partisans muy 7 millions waaye léegi 10 millions yooyu fu mu leen di dugal 10 millions yooyu dañ leen naan foog lu ñu wax rek ngeen ne gongo foog lu kii wax rek ne waaw eh du noonu la ñu yoree réew de déedéet négatif bu kenn yàqal kenn mais du noonu la ñu yore yoree réew. Pape Alé d'accord nax yow mais internet bi moom faal non non non xale yi seen TikTok ñoom ñoo ko moom seen page Facebook ñoom ñoo ko moom. wax bu ñaaw bi ngay ni wax wala ku tuumal ñit li ma doon wax si vie privée ku tuumal nit mbaa ku sosal nit kooku na porter plainte procureur jëli la mais amaat ay procureur de la république yoo xam ne boo defee post Facebook na Basirou Ndiaga ñaaw fay wala Basirou lii wala Sonko lii dañ lay procureur day autosaisir eh article quatre-vingt-huit boobu di fi dox de déedéet négatif sama baat ci kaw loolu bu doon loolu da ngeen doon bàyyi tey coup d'état am militaire jël réew mi wala stabiliser ko mais nit ñu ñëw di wax waxi démocratie di fexe pour liggéey ensemble ngeen bëgg ne non ñëpp nii la ñu war a waxee ñëpp nii la ñu war a comporté woo déedéet déedéet nous sommes dans une république tey su ma nekkoon tey palais présidentiel article quatre-vingt-huit dal ci ku commenté comme lu kal voilà fale du kayta tey lu mu commenté woon gen foog tey genre commentaire yooyu tey dina génn procureur autosaisir au nom de qui du président de la république parce que mooy article quatre-vingt-huit déedéet démocratie lañu nekk dañoo woote changement changement bi liggéey kese la mais nit buy liggéey na xelam dal nit boo ko bëggee soppi doo ko imposer yow yaay am ligne de conduite bu leer nañ nit bi gis na se liñ de conduite bi gis nga nit buy ñàkk fayda di wax di wax di wax di wax muy gis na ay abonné ñu ngi gën a wàññeeku mu ngi saaga ay abonné mooy gis nga xam nga ñenn ñi bës lañ ci war wërkatu bës yooyu yéena leen topp di faal te man lu ma seetaan kilifa yi dañuy seetaan ba pare ñëw porte plainte Mame Matar Gueye ku la seetaan loo man du ma seetaan yéen nii démb laa doog a seetaan kan kenn kuñ ma paas benn fem nii xaw ma naka Cobra mami mu ne leen eh lii dafa am Sénégal ñu ne ma kii mooy xaw ma Cobra mu ne catastrophe man Pawlish laa gëj xam ay affaire yu xew ñu may wan ay femme ne ma waa lii lañ def man leen waa léegi lan moo si am te ñoom ñoo ko def kan moo leen seetaan yéen a leen seetaan noo ban presse ngeen war a waxal mooy presse yii nekk Sénégal presse yi sew sewaan yi nga xam ne dañuy topp kaa wala mais pas ñu yor seen portable def seen vidéo muy seen yëfi bopp presse bi jël ko traité ko comme kaa ngeen bëgg a dem jàpp kooku kaawal ko yóbbu ko tribunal pour ay banalité te gars yi sàcc xaalis bi du weex tàll ci réew mi ñu war topp suñu xaalis génnee ko au calme ngeen di lijjanti koy def vidéo d'accord ma on est dans une démocratie Fall Fall man démocrate laa nag loolu rek ay sama cat article 88 moom Fall nañ ko xoolaat tuuti te yéen ñi di politique tam gars yi talatuñ politique on a duré trois ans yoo xam ne enjeux yi bëri na ku gëm li leen seen seetkat yi di wax yéen a xam ku gëm li la keneen di wax yaa xam mais man nous dans une république te Bassirou Diomaye Faye autant qu'il y a d'hommes dans l'armée et dans la gendarmerie et dans la police sécurité bi ñu war tegal Bassirou Diomaye Faye ñun ñoo leen gën a xam enjeu sécuritaire yi Bassirou Diomaye fay war am gars yi nag ñu ko ba pare bàyyi ko mu sedd bu leen fàtte ne général Tine mooy au directeur de la gendarmerie te ban dëkk lañ ko affecté xoola yàlla li muy def ñu ngi koy sanctionné affecté ko Russie eh suñu gendarmerie bi en matière de sécurité am mbaalo Adama Baro Libéria président yi bëri suñu gendarmerie moo leen ni garde boog suñu GIGN bii ngeen di xeeb boog ñoom ñi nga xam Macky Sall tey rabaissé na ba niveau boo xam ne étudiants yi dañ leen doon tutoyer. sécurité Bassirou Diomaye fay man xoola du ma sax tëdd di ci xalaat moo tax yenn message yi ma ko tontu je ne vais pas vous répondre négatif man maa du sax tëdd sax di calculer ñu naan bi dañ koy dóor bal xanaa waaye yéen mu yéen yow ñaata tireur d'élite nekk fii gars yi soyons nañu bàyyi politique gu léeboon léppoon bu ñu Macky Sall yóbbu woon patriote jublu leen gis nga man si man bii heure yaa ngeen naan ballet national bi fii la fii la ñuy def bu saa waatee ba pare yéen ñëpp da ngeen di def rang waa Tëngéej génn bari ñi génn Kër Massar génn yéen ñëpp ngeen taxaw tàccu seen président mu dem ba palais ñu jox ko caabi yi Ousmane Sonko jël Macky Sall gunge ko mu jël avion dem ko quoi ñu jublu ci liggéey bi nag à partir du 6 lu waay am ci xam-xam teg ko sur la ñu jublu ci liggéey bi. pour clôturer ministre yi Pastef lenn lañ dul weranteeti les sénégalais doublon la mun ñu nekk ministre de munul nekk de vous avez beaucoup de cadre à l'étranger certes mais nag mënatuñu am député boo xam ne munul dem suñu assemblée nationale ndax lan Amazon France lay liggéeye mënutul nekk de yooyu yëpp day dagg exclusive il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise soyons logique la dessus parce que mu dugal la suñu post ministre nga am nationalité allemand wala nationalité française wala nationalité américaine parce que lan tey un cadre dañ lay dugal te ñu ñu xeex ci Macky Sall xeex ci Ablaye Wade xeex ci Abdou Diouf gars yi man déggu leen lu ma wax samay principe du wàcc de samay principe du ma ko wàcc de déedéet ku ñuy fal day andi nationalité sénégalaise am exclusivement la wax nationalité sénégalaise mu leer ñu ne dug liggéey benn dëkk député boo leen di choisiraat yéen waa Pastef bu leen leeree ne mënul ñëw suñu assemblée nationale dañ leen di ñaan ko waa dañ leen di ñaan bàyyi leen mu sedd bàyyi leen gars yi job seen job fii si kaaw bi yéen ngeen job parce que fii am na fi poste de responsabilité yoo xam ne ku ko fi occupé c'est parce que t'es un français imagine kooku ñu ñëw tey fal ko te ministre ak ñun luñ fi kebetu yëpp non non non non non non non non non non non négatif gars yi vous avez des cadres mais nag seen liste ministre bi consultation yi am na ñu ma jot du ma ko nangu de nañ leer de les double nationalité là les français sénégalais là les allemands au sénégalais les américains au sénégalais russes au sénégalais polonais au sénégalais. te ñun ñu xeex ci Karim Wade ñun ñëpp kontaan jubile tey ñu bëgg a ñëw parce que lan ñun ñoo leen fal à 54 pour cent dañ koy nangu pour les beaux yeux de kii négatif. négatif nekkuma ci loolu nekkuma ci man moom nee naa leen kuy àndax man rek na ma dëgg di rey ku mu mënti arrangé yaa xam waaye yaa naa maat kilifa yéen ñëpp société civile 2012 2013 ak bi Macky Sall doogee falu ñun ñoo ko xeexoon si ministre allemand wam boobu fàttaliku leen bu baax fi ma waxee woon ñoo ko xeexoon ne Macky Sall kii allemand la du fi faloo pourtant génnoon na carte d'identité sénégalaise mais il était allemand sincèrement dañ ko xeex ba Macky Sall lu muy dëgër dëgër gat boobu il été obligé mu génnee ko ci gouvernement bi. tay nag mënoo jël un cadre boo xam ne mu ngi fi France de la République française andul ñu ko ne ñu doomu Casamance laak wala doomu Jaxaaw laak wala doomu Kédougou laak gars yi soxlaatuñu xam-xam yooyu de ñun suñu doomu réew la ñu soxla ku mel ne Bassirou Diomaye Faye exclusivement sénégalais Ousmane Sonko exclusivement Casamance entre les deux muy Sénégal image bu leen Macky Sall woon ñoom kese yéen ñëpp dama jàngat image bi mënu ma woon xoole mooy image yu gaynde gi Macky dox na ba si bopp gaynde gi moom mooy xoola moom dox na gaynde gi ba génn nekk si bopp bi moom kese moo jàpp gaynde gi moo tax réew mi toj réew mi yëngatu mais Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye mu ngi tim gaynde gi di laal loos bi Ousmane Sonko nekk ci ginnaawam sama gars yi ñaari nit ñoo songu gaynde xam ngeen gaynde googu lu muy tekki mooy Sénégal te gaynde yéen ñëpp ku ci wéet ak sama waay da ngay raf ak loo dëgër dëgër dëgër di nga raf balaa ngaa taxaw am sa conscience bopp. gaynde googu li mu image boobu li mu signifié ak li gaynde gi wax ak ñoom ah saa waay jënd na ba romb gaynde gi ñun ñaar ñoo des si gaynde gi nañ leen fexe gaynde googu nuñ koy maîtriser ba di tabax te gaynde gi du lekk benn sénégalais loolu mooy suñu sas quoi paa nekk ci ay détails bàyyi leen détails je vous en prie patriote bàyyi leen détails ñu jublu si le 2 avril bàyyi leen détails yi ngeen jublu ci le 1er avril seen set setal national bi génn leen bale dëkk bi mu set le 2 Bassirou Diomaye Faye romb fu set wecc mook Ousmane Sonko suñu ñaari président yi basumoo basumoo mare nafiyo nafiyo koy soyons unis vers une nouvelle cause le développement du Sénégal moo gën wax ju bëri ji te ñu faj doomu jàmbur yi loolu rek laa leen di ñaan faj leen doomu jàmbur yi gémi yi gendarme yi auxiliaires yi li si blessé c'est énorme ñi seen tànk yi ngi commencé nëpp te amuñu benn prise en charge du police du kenn ku leen jël prise en charge yeneen nomination yi bàyyi leen seen tiit yi lu loxo def loxo moo koy dindi débat bi day gudd te man ant na ma wax ju bëri ji mama yi